qu'on ne nous a pas encore dit, Mais pour le moment, nous sommes dans la euh, stupéfaction la plus totale. Parce que en Afrique, encore une fois, quand la presse se met en grève, c'est parce que la liberté d'expression est confisquée. Des médias sont fermés, des, des signaux de TV coupés et des journalistes emprisonnés. Ici, on se met en grève parce qu'on refuse de payer l'impôt. C'est une nouveauté. Si tous les secteurs faisaient pareil, si tous les secteurs faisaient pareil, si tous les secteurs, que ce soit les cliniques privées, que ce soit les entreprises, refusaient de payer l'impôt et se mettaient en grève. Ce n'est pas du tout très sérieux. Donc je pense que la presse a de sérieux problèmes. Ça, il faut l'admettre. Pendant longtemps, euh, ils ont peut-être bâti un modèle qui n'est plus adapté à l'évolution technologique en cours, avec la diversification des sources, etc. Je pense qu'il faut bâtir un nouveau modèle qui peut garantir la pérennité du financement de la presse. Mais pas de cette façon où il y a des conventions de complaisance, où il y a une politisation de beaucoup de, de, maisons de presse, il y a les chefs, euh, les patrons de presse. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est les journalistes ou les patrons de presse qui sont en grève. Parce que quand même, c'est curieux cette situation où les patrons de presse, qui sont pour la plupart des milliardaires, hein, il faut le dire, se mettent en grève pour ne pas avoir reversé les cotisations sociales dues à leur à leurs salariés, qui sont les journalistes. Donc c'est une situation assez UBS. Mais en tout cas, nous sommes en mesure, nous sommes un peu fiers dans la mesure où cette presse n'a pas été baïonnée, n'est pas sortie en grève parce que ses droits auraient été confisqués. Mais pour ce fondement-là, nous, nous, disons que, en tout cas, le Sénégal n'a pas un problème de liberté d'expression, n'a pas un problème de droit de l'homme il faut bien spécifier cette situation qui est assez unique et cocasse vue de l'extérieur, où des entreprises de presse se mettent en grève pour refuser de payer leurs obligations fiscales. Donc je pense qu'il y a des concertations nécessaires pour que le modèle actuel soit dépassé, parce que c'est un modèle qui, à mon avis, ne permettra pas d'avoir une presse libre. Une presse libre, c'est une presse qui est totalement indépendante financièrement, qui ne dépend plus de la volonté euh, des politiques, notamment des conventions signées avec les ministères qui imposent parfois la une à ces presses, à cette presse-là. Donc je pense qu'il faut bâtir un nouveau modèle, il faut s'asseoir autour de la table et discuter, mais ne pas s'engager dans ce bras de fer ou ces chantages qui avaient cours dans d'autres temps, mais qui désormais sont totalement révolus. waaw donc ñun li au Sénégal daf jaaxal ci li presse bi ñu ci ndax li xamone ci Afrique <clears throat> moy heure bu journaliste né day grève c'est parce que dañoo tëj ay télé dañoo tëj ay ay journalistes dañ leena door dañ leena jaay doole dañ leena a fi nak nag nee nañ ñoom dañuy dem grève ndax li nga xamni moy impôt biñu war ñom ak impôt ak cotisation sociale yi ñu war a euh, verser seen euh, journalistes yi moom la fayul yoreel bor état yoreel bor état état ni la fayal nga ni damay dem grève lolou kenn mënu ko dégg kenn mënu ko nangu parce que yeneen secteur yëpp suñ ko defee suñ ko defee kan moy fayal journaliste bi retraite kan moy fayal journaliste cotisation sociale am popula ñoom jël fan lañ ko duggal journaliste ñoo waroon grève contre le patron de presse ni leen suñuy cotisation sociale fu ngeen ko duggal parce que da ngeen ñuko collecter collecté dagguñu ko ci suñu salaire ba paré dam ko ci seeni poste lolou mo jaadul mais lolou yëpp ba mu amé pour ñu xam ne dañoo war a dajalewaat nit ñi journalistes yi ak état ñu tok presse bi dafa nek ci jafé jafé ndax modèle bi mu doon fonctionner mom mo yex ci tay ci limitam lool kese la au lieu ñu comprendre rek noonu ñu jéem dugg ci chantage bi ñu xamone xaaral gouvernement bu ñu joxul xaaliss bu ñu signélul convention ñu bind ci ñom yu bon loolu mom régime bi du ko doxe nee na na ngeen ñew ngeen tok ñu waxtaan bu ñu lijjantee cotisation sociale yeeg yoy ba paré ñu tok nak waxtaané un nouveau mode un nouveau euh, presse bu baisse bo xamanteni un financement pérenne parce que presse bu yorul indépendance financière bu ko presse amul du libre te presse dafa am solo ci donc régime bi gouvernement bu président Ousmane Sonko euh, président euh, Diomaye pour bâillonner la presse ni li ngeen fi te régime Macky Sall dem ngeen wax ak impôt ngeen nan ngeen ak grève parce que chantage bi ndax yeneen secteur yëpp bu ñu leen ñu jàll yeneen secteur def ni ni ñun tamit fay mais cotisation sociale salarié bi moo ko ndax bu retraite retraite bi nga ko ci salaire versé je pense réew du noonu maintenant nag war nañ waxtaan ñun ñëpp ñu daje ndax presse lu am la démocratie mënul dem sans presse mais presse boo xam dañ ko marchandiser politiser mu nek levier bo xamni dafa am certains patrons yu koy utiliser pour seeni business lolou mom dafa wara jeex parce que journaliste bi bu liibrul indépendant financière bu ko amul groupe de presse suñu amul modèle bu bees bo xamni ci lañuy fonctionner mais ils vont dépendre toujours des turpitudes des politiques te loolu baxul ci presse bi baxul ci image presse baxul ci démocratie donc fofu lañ toll mais ñu ngi ñaan ñu dajaloo ñom ñep ñu waxtaan et je pense que suñ ci guéné chantage bi patron yi di def jàpp ma ni journaliste benn bo xamni dafa ni dañ ma xañ ma wax amu fi ben bi fi régime bi ñëwee ba légui déggaguñ ben journaliste bu ñu emprisonné déggaguñ ben maison de presse bu ñu tëj juguñu journal bo xamni ne nangu nañ ko wala ñu tejj ko loolu mom fokk mu leer ci bop nit ñi maintenant tok leen ngeen waxtaan ak état pour ñu def les états généraux de la presse wala les assises de la des médias ñu trouver parce que médias yi bari na kenn xamul kan mooy kan bis bu nekk nga gis titre bu bees titre bu bu génnee une semaine jaay benn nit pendant une semaine dootoo ko gisaat régulation boobu dafa am parce que c'est un pilier de la démocratie Quand du la presse bi ñu koy salfaañe wala ñu def ay marchandage wala ay ay chantage cycle dafa est très c'est un cycle qui buy très xam nga cycle ñëpp ñu ndax presse lu am solo la ci démocratie mënul dem sans presse mais presse boo xam ni dañ ko marchandiser politiser ko mu levier boo xam dafa am certains patrons yu koy utiliser pour du business C'est ce dafa est a jeex parce que journaliste bi bu liibrul indépendant financiers bu ko

déggaguñ ben maison de presse journal nangu nañ ko wala ñu maintenant tok leen ngeen waxtaan pour ñu les états généraux de la presse wala les assises de la des médias ñu trouver parce que médias yi bari na kenn xamul kan mooy kan bis bu gis titre bu bu bu une semaine jaay ont nit pendant une semaine dootoo ko régulation parce que c'est un pilier de la démocratie kenn du bàyyi presse bi ñu koy wala ñu ci def ay marchandage wala ay ay chantage lolu dafa wara jeex c'est un cycle nak buy jeex xam nga cycle buy jeex ay nit togon ci ay privilèges togon ci ben confort intellectuel et financier nga xey suba dindi ko dañuy mer dinañ jog mais dans l'absolu la liberté d'expression ken laalu journaux yëpp kum neex lu la neex ngay wax kenn tereegu ko ci ben télé kenn tereegu ko ci ben journal. président de la République mu recevoir leen ba xam nga xam nga état bi dafa am nu muy doxe yàlla ministre d'abord bi nga xam ni moom lañ dénk loolu affaire bi régime yu njëkk yi li mu amoon mooy da ngay tëb ministre tëb premier ministre tëb ñëpp dem ci président mu réglé la lépp nga demaat sa yoon ñoom loolu lañ xamoon état nag bii dafay am nu muy doxee nañ dem saisir ministre bi président kenn du ko forcer do man bu ma kon ku mu neex nga dem présidence déposer sa lettre ni ko da nga may recevoir par la force du avons lay Il n'y a pas une volonté de leen recevoir wala benn mépris buñ ci am mais nous ko def dans les règles de l'art avons, li ñu le logiciel bi ñu fonctionner avant suñu si menacé gouvernement bi tordul ko le bras le gouvernement a cédé C'est lañ leen ni jeex na ñoom nag dafa patron de presse C'est loolu moo des ci seen bopp te loolu lañ continuer mais le gouvernement est disposé à discuter parce que a ku amul presse munoo wax yaa ngi ci démocratie donc le gouvernement a intérêt à avoir une presse libre, une presse fi euh, une fiabilité solidité financière dont on dépend ci désiderata politique dont rek man da ngeen may neex bu ngeen bindee lu neex ma des cotisation sociale ma une amnistie tant que vous a ngi ci tant que vous avez bras armé d'un parti pour faire des choses, etc. il faut nous assainir l'eau mu une presse responsable qui suit le gouvernement sous lu le mu wax ko démocratie mais chantage bi na bon ouverture session session extraordinaire parce que Daniel ni premier ministre dafa ni le règlement intérieur Sans changé comme ko ma a prétexte mais nous nous dossier règlement intérieur bi donc le premier ministre doit wax de cette euh, session extraordinaire bi pour changer effectivement euh, le règlement intérieur pour se conformer à la restauration post premier ministre donc euh, nous conférence président est réunir tout à l'heure nous wax ñu calendrier nous discutons discuter en plénière nous avons lan lañ ciy téye la merci beaucoup merci.